di leen nuyu di leen ziyaara waaye it di ziyaara ki nga xam ni moo ñu ci doon def waxtaan wi ci sunu mbokku daara Cheikh Moustapha Diop dafa am lu mu junj ci njëlbeen waxtaan wi te it loola la la matale loola la jooxe ci waxtaan wi ba ni mu ni mu ni mu noppee mooy ni dina waxtaan ci tasawuf waaye jadaliyaat yi nga xam ni dafa ñëw ci suuf yaante ci seen digganteeg diggante ñi nga xam ni ñoo taxaw temm ca ba sufiyanke amee ba tey ngir déjjati ko loola nee na du ca wax te waxu ca it nag eh, ndax eh, ñun ñu fi daje ñëpp ñoo bokk wenn naanuwaay woowa eh, kon soññee ci tasawuf moo fi gën a am njëriñ te xulool tasawuf ndax fii kenn nekku fi koo xam ni sa taxawaay dafa nekk dafa sofaanoo ak tasawuf alhamdulilah waxtaan wi gàtt na waaye it fees na dell fees na dell ndax lépp it xam-xam la lu mu ca wax rek indi na dalilam ci alquran indi na ko ci waxi yonent bi ak dundu ñi nga xam ni ñooy saxaaba yi ak ñi àndoon ak ñoom ba ci suñu sang yii rawatina Cheikh Ahmad Bamba kon waxtaan wi jotale na euh, matale na it bi kulli maayir euh, kon yal na yàlla fay ko yal na yàlla li ko tawfiq ci ay mbiram yëpp gën a leeral xelam euh, daanaka man nees na ne lu ñuy taaliq amu ci daanaka rek ndax wax ci dafa mat sëkk te wax bu motee am na noo cay bëgg a dollee rek da koy da koy yàqaat waaye nag euh, dañu ci taxaw rek ci euh, fa nga xam ni foofa la tënk tasawuf te foofa la tasawuf tënku it nag euh, te mooy wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li wax na ko ci waxtaan wi jaamu yàlla tax yàlla bind doomu aadama moo tax mu bind jinne jaamu yàlla googu it nga xam ni la ko tënk mooy diine diine jooju ñett pàcc yi muy al iman wal islaam wal ihsaan comme na mu ko waxee eh, eh, ihsaan dëgg la dafa pàccoo ak yooya waaye dafay dellu di rafetalaat yooya ndax liimaan du wér lu dul ni lixsaan da koo da koo gunge eh, lislaam it du wér lu dul ni lixsaan da koy gunge te lixsaan mooy tasawuf boroom xam-xam yi ku ci nekk dafa am wàll woo jël ci yooya ulamaul fiq jël la aju ci lislaam détaillé ko ñi màcc ci pas-pas jël li aju ci tawxid euh, di al iman jàngat ko détaillé ko tàggate ci yare ci waaye ulamaaw tasawuf nag ñëw euh, jël li nga xam ni mooy wàllu rafetal lay rafetal imaan lay rafetal ihsaan tudde ko tasawuf tur amul solo la am solo mooy madmunu tur wala tur wala mboo moo am solo kon la ca am solo mooy rafetal gi nga xam ni boroom xam-xam yi tey moom la ñu ñëw ngir taaral pas-pas waaye ñëwit ngir taaral li nga xam ni mooy al amal al badaniya te mooy lislaam eh, leeral na ko ci anam goo xam ni macha allah motale na ndax it nag jaamu yàlla comme ni mu ko waxee moo tax yàlla bind moo tax yàlla bind doomu aadama moo tax mu bind jinne Eh, jaamu googu la tànnal boppam ci li ko jaam bi war delloo njukkal wa rabbuka yaxluqu maa yashaau wa yaxtaar maa kaana lahum alxiyara yàlla rek a bind keneen bindul amut kenn ku bind dara li ñu naan création dëgg dëgg dëgg kenn musu ko def kenn du ko mës a def nag mooy lu doonut woon dara nga fexemu mu doon dara àddina bi li fi nekk lépp yàllaa ko def lépp amul kenn ku ma sa génn àdduna bi ba indi fi loo jële ca biti amul amul kenn ku ma sa génn nekk teef gi ba jële ba indi fi loo jële feneen kon lépp yàllaa ko bind rabbu hël euh, euh, min xaaliqin xayrullah ndax am na ku créé ndax am na ku bind ku dut yàlla amul kon yàlla moomu bind nag ginnaaw ba mu bindee dafa am lu mu lu mu tànn pour ña bind wéy ca loola wa rabbuka yaxluqu maa yashaau wa yaxtaaru moo bind li ko soob ndax lépp la man waaye ca lamu man dafa am lu ko ci soob mu bind ko loola ko soob mu bind ko nag dafa daf ko tànnal na mu bëgg mu dunde ko kon kenn amul choix ci àdduna maa kaana lahumul xiyaara doomu aadama waruta utal boppam benn choix ci lenni àdduna ndax choix am da ko war a tënk saa su ne ci li sunu borom li li li doon choix sunu borom li ko sunu borom tànnal ci la war di wéy li waral euh, diine ji nga xam ni moom la yàlla gërëm mu tudde ko diiney lislaam li waral mu tudde ko diiney lislaam lislaam li muy tekki mooy joxe sa bopp jébbalu moom la lislaam di tekki jébbal sa bopp yàlla ki jébbalu nag amatul suwaa ci dara amatul choix ci li muy wax amu ko ci ni muy waxee wa qul lil muminina yaxud nu mu ko waxee wax fit min sawtika inna ankara al aswaati la sawtul xamir kon yàlla am na nu mu bëggewul nga waxe ko waaye am na lu mu bëggul nga wax ko it wax fit min sawtik eh, eh, maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid am na lu mu bëggul nga xool ko wa qul lil muminina yaxuddu min absaarihim kon loolu yëpp dafa am ab njébbalu gu sa borom soxla pour bët bi jébbaloo ko bu mu xool lu dut lu ko neex moom yàlla ci dox yi nag fa dox jëm fa lépp suñu borom dafa am nu mu bëgg nga defe ko dafa am nu mu bëgg nga defe ko wala tamshi fil ardi marahan loola kon tànk sax dafa am nu suñu borom bëgg mu mele noona pour jébbalu tànk mën a wér la ngay lekk mu ne la lii baax na lii baaxut ca la ngay naan mu am lu mu la ca tànnal am lu mu la ca tere ci lépp rek sunu borom am na lu mu ca bëgg ak lu mu lu mu ca bëggut la mu bëgg nag ba tànn ko yow mi ne da ngaa jébbal sa bopp sunu boroom danga war a wéy ca loola pour sa lu mën a wér te jébbalu googu mooy li li confirmer sa dundin ndax yenn saay ma faral di wax ni bu ñu xoolee suñu xeet yi ñu am fii ci senegal baatu diine dañ koy arabal rek diiney lislaam diiney lislaam waaye diine boo xoolee bu buñ ko idaafa ci lislaam la muy tekki mooy dundinu jébbal sa bopp yàlla loolu mooy diine yi lislaam ak diin mooy dundin dundinu jébbal sa bopp yàlla kon yow mi ne dangaa jébbal sa bopp yàlla dafa am nu suñu borom bëgg nga dunde noona boo dundewul noona rek wérut sa jébbalu wérut jébbalu googu dëggi-dëggi jébbalu nag nitu tasawuf ñoo ko dëggal ci biir jaam yi jébbalu googu ba sa lépp nga jox ko sa borom sa xooli nag sa xool la ngay xool sa wax ak sa waxin sa doxi nag sa dox sa la ngay lekk lépp ay matu tasawuf rek ñoo ko dëggal tàggat ci seeni ñoñ ba li sunu borom tànnal ay jaamam ñoom mu doon seen choix ñoom tamit ndax dafa doon choix yi sunuy borom ndax dañuy gañuy jàng sax ca njëlbéen nga ca ca ca ca awaluma yajibu ala al mukallafi bul defe ne la bul bëgg lu dul yàlla bul bañ lu dul yàlla lépp rek jox jox ko sunu borom kon loola mooy tasawuf tànn la yàlla tànn nangul yàlla la mu tànn la mu la tànnal ci lépp ki nangu loola kooku mooy nitug tasawuf dëgg-dëgg nag te yàlla rekk tax kooku mooy nitug tasawuf kon jaamu yàlla googu mooy wéy ci li la yàlla tànnal eh, ci anam yëpp ci anam yëpp sëriñ Touba nag am njàngaleem ci tasawuf dafa doon njàngale mu mu mu mu très dafa am xusuusi ya ndax eh, lu bari jaar na fi ci tasawuf bu dul tasawuf sax ci wàllu pas-pas yu bari jaar nañu fii ginnaaw ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee pas-pas bu wér pas-pas bi ko sunu borom jox Jibril wàcc ak moom mu ñëw ci alquran ñëw ci sunna yonent bi yonent bi jàngale ko am na yu ca xew yu ca juuxoon ba tey yoo yaa nga cay juux ba nëxal ci lu bare bare bare wàllu uh, fiq tamit uh, tamuy lislaam lu bari juux na ci yonent bee ko jàngale aima yi ñëw ñoom it yaatal njàngale moomu lu bari tàbbi na ci ba it nëxal ko tasawuf fit noonu la mel yu baree baree bari tàbbi na ci ba am lu mu ci nëxal waaye sëriñ Touba moom sunu borom dimbali na ko ci xàmmee ak ràññee ba tax mu jàngale tasawuf goo xam ni nëxit amu ca dara amu ca lu nëx lépp lu mu wax ci njàngaleem ci tasawufam manees na ko layale alqur ci alquran wala ñu layale ko ci sunnati sallallahu alayhi wasallam comme ni ko Cheikh Moustapha euh, doon leerale léegi am njàngaleem lépp day delluwaat ci alquran delluwaat ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallama eh, ci ni ñu doon njàngale al ihsaan googa nga xam ni mooy tasawuf suñ bi ak ràññeem yeggoon na ci mu tënkam njàngaleem ca loola eh, dinaay faral di wax ni bari na ci ay matu tasawuf eh, ñoo xam ni dérapage yi am ci tasawuf lu baree bari ci ñoom la jógee donte jubluwuñu ci nit ñi dérapé waaye seenum njàngale dafa demee wet goo xam ni taalibe yi ñëw ci seen ginnaaw am ci déggin woo xam ni dafa sofaanoog lañ ca jublu ñoom ndax njàngaleen ma moo desee leer ndax dañu tënk seenu tasawuf ci théoriser tasawuf waaye tënk seenu tasawuf ci xamle ku dox ci yoon wi ba yegg yëg-yëg yañu daan am ca gannaaw ba ñu yeggee dañoo jàngalee tasawuf ci anam anam googu ñi xamut nag jàpp ni loola mooy tasawuf te fekk loolu du tasawuf loola ku yegg la ci yàlla ba pare la muy yëg la mu mos foofa di ko wax ak nettali yow nga bëgg a dee foofa mooy yoon wa booba da ngay sànku ña tasawuf sànk yëpp wala ñu sankoo ci tasawuf yëpp yoon yooyoo tax ñu sànku sëñ bi nag ak ràññeem yeggoon na ci mu xam ni tasawuf jëf la tasawuf jëf la moo tax mu tënk la ci ay téeréem ya nga xam ni doy sëkk ci ku bëgg a sóobu boo ko xamee nga mën a sóobu te boo ca jaaree yegg dale ko ci tasaw tasaw tasawudu sixaar euh, ba ci euh, ci ci wàllu euh, tënk na ci pas-pas tënk ci lislaam tënk ci tasawuf nga dem ci tasawudu tasawudu subbaan tamit mu def fa lu mel noonu ak yenn téere yi nga xam ne daf caa ber benn benn ca yooya yi mu jagleel lislaam kese fiq kese lu mel ni jawharu nafis eh, ak yamu jagleel pas-pas kese lu mel ni mawaahibul quddus la mu jag yamu jagleel tasawuf kese lu mel ni masalikul jinaan nga xam ni dafa doy sëkk ci kuy sóobu boo ci jaaree nga mën a yegg ci yàlla nga mën a yegg ci yàlla kon sëñ Tuubaa tasawufam daa leer lépp lañ mën a layal lépp lañ mën a layal amut lu ca nekk te mënee su ko layal ci alquran wala ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa eh, loola taxoon seenum njàngale daa teguwut ci yoon woowa sëñ bi du ca site kenn cim njàngale yëral téere sëñ bi ba mu jeex doo ca gis turu ibnu ibnu arabi doo ca gis turu afifu dini talmusaani doo ca gis turu sadru dinil wi doo ca gis turu xalaaj yooyu yëpp sëñ bi jàngalewu ko ndax dëgg la ay nitu yàlla lañu ay nitu sufiyanke yu mag lañu waaye nag seenum njàngale taxut kenn yegg taxut kenn yegg sëñ bi nag daa bëgg ñëpp yegg bëggut lu muy féete woo sax ndax li tax mu yaatal ba li ko ñor mooy nga doonu taalibe foo ko doone baax na waaw doonal taalibe rek doonal ab murit foo muritoo jee baax na muritoowul ca tiijaan ya wala ca xaadir ya wala ca chazeliya ya wala ca naqshabandiya ya la ca am solo mooy nga doonu murit loola rek moo ma sa ñor sëñ bi kon moom mooy ki ki jàngale tasawuf dëgg dëgg dëgg tasawuf ci koo xam ni da ngaa bëgg suubu sóobu yegg sunu borom dimbali ko ci it mu réussir ci lool réussir ci réussir ci yeneen loola lépp doon tew tawfiqu sunu borom kon tasawuf amul problème waaye problème ya dugg ci pas-pas problème ya dugg ci fiq problème ya dugg ci yeneen ñoo dugg ci it ci tasawuf waaye jëmmi tasawuf amul problème tasawuf sëñ bi doy na ci misaal kon dañuy dellu euh, santaat yàlla ba ñu yàlla boolee ci ñoñam boole ñu ci ay taalibeem boole ñu ci ñi nga xam ni ñooy xeñtu am njàngaleem eh, di ci sant yàlla bu wér a wér di dellu sant it ñi nga xam ni ñooy njabooti Cheikh Abdoul Khadir eh, Dia Mbacké eh, ci kóolute gi ñu am ci sunu jëmm ji tey tey tey la ma sëñ saali woone ma bëgg nañu nga ñëw am looy ay kàddu yoo ci jël mu mu jàmp lool waaye teewul ñu jéem ci rek lu ñu si wax lu ci doonum njuum te ñu ngi koy jéggalu suñu borom waaw wax ji lépp Cheikh Moustapha wax na ko matale na tënku na ci alquran tënku na ci sunna tënku na ci njàngaleem sëñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi si alhamdulilah al saali macha allah waaye jërëjëf ak Serigne Moustapha Diop Ndar ñoo ngi leen di ñaanal bu baax sunu borom guddal seeni fan te wéral leen te baril seeni kem ndax ñu mel ni yéen yoonu murid da leen a soxla lislaam soxla leen kon buñ leen amee bu leen yoonu murid amee dañ leen a war a ñaanal suñu borom guddal seeni fan te wéral leen te gën a leeral seeni xel te yokk seeni xam-xam kon lool rek laay daaneele kàddu gi di leen santaat bu baax a baax kon ñu wéyal programme bi nga njëkkante waxtu Euh, dafa am genn téere boo xam ne daayiratu ahlur rida da ko génne ren ànd ko seeni rak ñenn ñi di seeni doom di al istihaab bi nga xam ne dafa bootu ci daayiratu ahlur rida ñu téere boo xam ne làmboo na lu bare bare bare ci ay xeeti xam-xam ak i njariñ ñu bëgg ko gaaral nag mbooloo mi incha allah di woo kenn ci ñi nga xam ne bokkoon na ci ñi ko doon saytu di sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Cheikh Doyoly moom sëriñ Abdou Dia Mbacke Doyoly sëriñ Cheikh Mbacke mën naa ñëw defal nu benn arbre bu gàtt ak exposition ak gaaral bu gàtt ci téere bi nga xam ne ñi ngi ko tuddee majallatu duyuliya majallatu duyuliya wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi mbokki taalibe ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi kilifa kër gi Cheikh Maam Balla Habiballah waaye di beral nuyoo gan yi nga xam ne ñoo bàyyi ko fu fasantikoo ci dëkk bi waaye di ci jiital waa kër suñu aafe xawa ñam ñi nga xam ne ñoom lañ ko dara jaale di wax kóllëre gi doxoon ci diggante ñaari sang yu tedd yooyu muy kóllëre bokk gis-gis bokk bëgg-bëgg waaye bokk dundal ak kuraatal xadimi al islaami te loolu mooy li nga xam ne ñaari njaboot yépp ci la ñu nekk kon ñi ngi ñaan yàlla gën a dëgëral taxawaay boobu di jël nuyoo bi di ko teg ci seen loxo ngir ñu jàllale ko mbokki gan yépp waaye di fas yéenee wax ci turu commission culturelle bu Ahlou Rida te comme ni ngeen ko xamee ci képp kuy yëngu ci domaine culturel lépp lu koy war ci wàllum bind lépp lu koy war ci wàllum taxawaay yu ni mel ba tax ci seeni xalaat ci seeni gis-gis ci seeni bëgg-bëgg ak gën a jëmmalaat kër gi tax ñu am xemmemteef génn benn téere benn majalla te moo nekk ni ñu tuddee ko majallatu diyooliya mu nekk loo xam ne dañu koy askanale dëkk boobu di Daaru Salaam Doyooli ginnaaw bi nga xamee ne ku baax kii Sëñ Abdou Dia daf ko sanc ci ndigal lu bàyyi ko ci Cheikh Ahmadou Bamba ñu jël tur woowu turu dëkk boobu tuddee ko li nga xam ne mooy ma jàlla bi gën a jëmmalaat xam-xam gën a jëmmalaat dëkk boobu mu nekk loo xam ne am na ay thèmes yu bari yu ci nekk bokk la ca thèmes yooyu boo xam ne dafay wax dafay résumé ci dundinu sëñ bi nga xam ne ku delluwaat ci téere boobu da nga ci mën a xam tuuti as lëf ci dundinu Cheikh Abdou Diagne am ci boo xam ne itam dafa jagoo spécial ci Daaru Salaam Doyooli nga xam ne ku Daaru Salaam Doyooli réeroon ci àddina xamoo fu mu nekk xamoo situation actuelle ba ca population ba fay dund ak yeneen yu ci mel yi ca topp soo ko yéree da nga ca gis am ci itam boo xam ne man mën nañ bu fekkee mën nañ ko tuddee dara jaale sax bu fekkee mën nañ ko waxee noonu sax saxsiyatul adat comme niñ ko xamee ci majalla yoo xam ne dafay génn ci ay kër jël kenn ci njabootu Sëriñ Abdou Dia di ki ko njëkk a wuutu nekk taawam Serigne Cheikh Dayoli mu nekk saxsiyatul adat bi nga xam ne man nañu wax ne moom lañ dara jaale majalla képp koo xam ne xam nga bëgg nga xam dara ci ak dundam muy njabootam muy ku mën a doon soo ci delloo da nga xam tuuti ci ak dundam waaye itam boo xam ne dañ koy jagleel waa kër sëñ xaafiya awa ñang ñoom ñi nga xam ne ñoom lañu tuddee bis bi ku ca dellu itam loo bëgg a xam ci dundiinu sëñ aafe mën nañu wax ne da nga ko ci xam am ci itam boo xam ne itam lan mooy dëgg mu murit ak ay principe am lay wax ak benn boo xam ne gis-gis wala lëggee ci Euh, jàngaleem euh, Serigne Touba radiyallahu anhu yàlla nañu ko saa borom ak thème boo xam ne développement wu Sénégal rôle bi nga xam ne murid yi nañ ko ci ak boo xam ne dafay xeertalaat wala soññewaat jëm ci xam-xam waaye rawatina xam-xam bu am njariñ am ci boo xam ne itam rôle bi nga xam ne waxambaane bi am na ko ci mën a construire société boo xam ne normal la te xam nañu société bu nekk dafa soxla ay ndaw yu koy taxaw am ci boo xam ne itam dafay jagoo ci rôle bi jigéen war a am ci mën a indi société bu baax ndax lu baax jigéen a lu jag jigéen a foo dem ci mbooloo ñoom nga fay fekk kon ñoom am na taxawaay bu ñu war a làmboo ci ay jikko ci ay melokaan ba ñu mën a am société boo xam ne bu baax la société boo gis na mu desal ginnaaw jigéen bokk na ci société yi gën a dellu ginnaaw moo tax dañ leen a war a gën a bàyyi waat xel gën leen a joxaat seen gëdd waaye gën leen a xamal ne jigéen warul yam ci liggéeyu kër gi kese waaye dafa war a am baat ci biti waaye dafa war a nekk kuy jàng xam diine xam doxaliinu àddina am ci boo xam ne itam yàqu-yàqu jamono ji mu mel ne jamono ji yàqu na lool ba foo ko takk weesu na am ci itam boo xam ne ci wàllum bennoo lay wax te loolu rek dafay doy ci ndénkaan yi nga xam ne ci waral bis bii di Serigne Abdou Dia na ko def muy loo xam ne dañ koy faral di wax soo leen bennoo noo leen songu daan la te ki doon def wax tijji euh, bi di soxna si ci aay yi mu doon jàng daf jàng wa'tasimu bi hablillahi jami'an kon loolu firnde la ci bu ñu gisee njaboot bi sos benn kuréel ñoom ñëpp ñu jàppandoo ca te muy ahlu ridaal yi ahfaadi Serigne Abdou nga xam ne kon képp kuy bokk ci sët yi waru def la nga bokk ca moo xam foo ca mën a bokkee moo xam góor la moo xam jigéen la itam jubluwaay bi nga xam ne itam moo tax wax nañ ko léegi muy dundalaat ndonal xam-xam waaye xeertalaat ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci kër gi rawatina ñu gën a yaatalaat seen gës ci wàllu xam-xam ci wàllum li nga xam ne mooy mën a dindi mooy mën a indi nit ki mu mën a am euh, nekk nit ku normal ci wàllu gépp moo xam ci wàllu àddina bi la wala ci li nga xam ne moo di wàllum diine mu mën ci sàggal xam tuuti loo xam ne dana ko mën a yóbbul mu nekk fikra boo xam ne nag dañu bëgg mu nekk fikra mustamir nag loo xam ne lu ñu ko def benn yoon bi rek ñu ne dañ koy def mu yam ci bii waaye luy continuer la comme ni nga xam ne jàpp nañ ne mënuñu defar conférence bi te amuñu base boo xam ne dañ koy décorer jigéen ñi sol seen ay hôtesse mu rafet noonu lañ xamee nag war xamee ne dañ ko war a boole ci programme bi mu nekk loo xam ne dafay continuer chaque jour ndax ni ngay teralee nit muy dundal biiram di ci ay lekk ci ay naan noonu nga koy teralee itam ci lu muy dundalee xelam ci lu muy dundalee diineem te loolu gën amul yóbbal bu ko gën a mën a rey ñu mën ko bàyyi xel bu baax a baax xam ne nekkul lu yem ci année bi waaye ci bëgg-bëggu doomu aadama ak ci kàttanam ak coobarewu suñu borom xalaat na boo xam ne dañu bëgg mu gën di continuer di am ci sec boo xamee ne jàpp nañu conférence bi ni ñuy farloo ci joxe ay addiye ay ote suñu farloo yi noonu ci am bu ñu lancé ngir bind ci ñu gën ci benn bàyyi xel comme ni ñu ko taxawee léegi te mu nekk loo xam ne bi ñu ko xalaatee wala bi xalaat bi génnee nit ñi jublu ci yàggul ci diirub ñaari weer képp lay toll mu nekk loo xam ne ñu ngi koy njëkk a def ci diirum ñaar weer nga mën a taxawal liggéey bu mel noonu te képp kuy yëngu ci mbind xam ne mbind ni mu metti ak coono yi mu laaj ci wàllum financement ma jàll ak yeneen yi nga xam ne daf ci aju nga taxawal lu mel ni kon loolu yitte la te yitte boobu mën nañu wax ne yoonu murid lu ñu mën a taxawal ñaari ñoo koy taxawal mooy al irada wal bëgg-bëgg ak yitte te kenn musul woon a jàpp ci àddina loo xam ne lu ab état di taxawal ñu ne mbooloo dinañ ñëw taxawal ko ci ay 1000 francs ay nangam ci nangam loolu kenn mosu ko gëm nga gis Touba ca lu mel kon li fondement yoonu murit wala bi yoonu murit lu ñu mën a ku baax bi muy wax ak yonent wax rabbi asxaabaka bil bi tasmahat kon taxawaay boobu wala loolu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ku baax ci Cheikh na Cheikh Amadou Bamba taxawaay boobu ci la njaboot gi nekk waaye boobu ci la njaboot gi fas yéene ànd ngir gën a yokkaat seen doole seen kàttan seen man-man seen xel seen gëstu ci mën a indiwaat leneen loo xam ne dina gën euh, am tatawur ci bi nga xam ne moom lañu génn tey waaye itam ci ay année yi nga xam ne mooy ci topp aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Modou Mbacke moom Serigne Cheikh Doyoly. moom Serigne Abdou Dia Mbacke di yooyu euh, li nga wax nu ma ci taaliix dara ndax lépp mag na lépp jot na kon sëñ Moustapha Ndiaye ñoo bëgg nga gaaralal nu mbokk yi wanal nu mbokk yi téere boobu sëñ seex doon présenté ci écran bi mel na yaa ngi ko doon génne ci jamono bi muy wax waaye nit ñi bàyyiwuñ ci woon xel da ko wane ci écran bi ñëpp teg ci seen bët dafay itam ñi nga xam ne dinañ ci mën a jot incha allahu dinañ leen ci jotale léegi ngir ñu man ko yóbbuloo kon euh, dañuy woyal rek programme bi ngir njëkkanteeg waxtu yi jàll ci beneen exposition boo xam ne dañ ko jagleel lenn ci ay leetar yoo xam ne euh, Serigne Abdou Dia Mbacké Doyoly doon na ko jokkalanteeg Serigne Touba radiyallahu anhu waaye lenn ci leetar yoo xam ne Serigne Afia Niang doon na ko jokkalanteeg Serigne Touba radiyallahu anhu exposition boobu ki nga xam ne moo ñu koy defal mooy Serigne Souhaïbou Mbacké ñu gën koo miin ci Serigne Abo moom Serigne Aïssa moom Serigne Abdou Dia Mbacké di yooyu Serigne Abo bismillah aoudu billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa man tabiahum bi adarhum ila yawmi din mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara leen jox seen wàccuwaay di leen yàlla saa borom jox ñaan suñu borom defal ñëpp jàmm ak salaam ak tawfiq comme ni ko sëriñ saa bi waxee rek bu njëkkantee waxtu bi noo ngi indi lenn ci ay leetar yoo xam ne jëmmi ko baax ki daan na ko jokkalante ak fere yi wala fere yi daan ko jokkal ci seen biir biñ ciy commencé mooy leetar bi nga xam ne sëriñ bi moo ko bindoon jëmale ko ci sëriñ Afia Ahmad Niang ci ginnaaw bi nga xamee ne ku baax ki sëriñ Afia jox na ko ak kaamil bindaloon na ko ak kaamil jox ko ko biñ ko ko joxee sëriñ bi sant ko ci fàggu ko ci loo xam ne moom la euh, sëriñ Abdou Lahad Sane lii doon wax léegi muy ak àgg ndax euh, àgg mënut a weesu ko sëriñ bi fàggul ci leetar bi mooy. baatu murid bi di jëfandikoo mooy moom Sëñ Tuubaa moo ko seeral ak muritam ak fàggee ko ci fàggul ak mucc gi mucc gi xam ne da cay wéet ndax am na ci góor yàlla yoo xam ne ëllëg mën nañu dem àjjana waaye suñu borom da leen yedd ni doo ko dem waaye moom mucc la ci loolu kon loolu mooy ak tawfeex te loolu lépp li ko may mooy mooy alxuraan ji nga xam ne ci la doon liggéeyee Sëñ Tuubaa ndax wax nañ ne euh, lépp fanweeri kaamil bind na ko. ci loxo boppam te bokkut ak kaamilu bokkaat yan doon def ca gànnaar waaye loolu day firndeel li ci mën a jàngatee ci weetal bi mooy euh, daa gën a dëggal ne Sëñ Tuubaa suñ borom da ko roy alquran ndax li mu defal suñu aadiya ci alquran la ko defee yàlla na jàppal si bàkkeem sëriñ xat bi jëm Mbàkke Daaru Salaam bi yóri moo ko bindoon Sëñ Tuubaa ngir di ci yeesal pas-pasam digganteem ak Sëñ Tuubaa ak jaayanteem ak ak dénkaat boppam Sëñ Tuubaa wax ci biir leetal bi ne ko sànq bi man sa jàmm bi de jàq naa lool ci sama bopp waaye li may jàq jàq jàq xam naa ne amul ku dul yow te gisuma it ku dul yow kon nag rek Mbàkke xoolal sa jëmm ci sama jëmm ji rek te bañ ma bàyyi sama jëmm bopp ci man de maa ngi mel ni koo xam ne da doon tukki yéen doo dox ba ngoon tàbbi ci ab dëkk boole xiif ak mar lool. waaye waxut xiif ak mar waaye fu muy faraan sax jaaxal na ko fi mu toogee noonu rek am ko nit ki jàpp ci loxoom yóbbu ko këram dem berndeel ko defal ko lépp jox ko bu fanaan bi mu xëyee mu daal di sant boromam ngir jàpp na lii mënu koo am koo kookee ko defal loolu yëpp ba mu sant ñëpp xam ne ne mbàkkee doo moroom ci faj aajo kon fay ñu suñuy aajo aajo jii ma bëgg nga fajal ma ko doon du la du leen lu defal ma toog fii mbàkkee foo gëstu rek kon loolu yaakaar naa ak cofeel ak gëm sëñ Tuubaa ak wóolu ak dayloo foofu fa la yem yàlla nañu yàlla tas si barke ci barke sëñ Tuubaa waaw loolu di di firndeel it euh, li euh, sëñ Moustapha doon waxtaan muy ndax lettre boo ko jàng da nga xam ci diggante xaw fa ak rajo rek ci la nekk kon ab su da nga xam ne ab suufi yànke rek mooy wax yàlla nañu ci yàlla dollee fayal bi ma ci daanee mooy boo xam ne it euh, Cheikh Amadou Fadel moo ko bindoon sëñ Abdou Amin 1961 di ko ci wax ne ko yow sëñ Abdou Khadir Mbacke digal naa la nga joxe téeméeri junni ak euh, ak juróom ngir mottal liggéey jumaa ji ngir mot 1961 63 ñu jumaa ji waaye ci ci ci bu nawet bi wàccee rek waaye la ci ëpp mooy euh, ki la soññi ci ci mottal liggéey moom xam ne kon yéen a àndoon liggéey ko kon rek moo ci ëpp solo ma cee bàyyi euh, bi xidmatin aw bi xidmatin aw hadiyaati moom dajale ci ñetti leetar yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Sohay bu Mbàkke macha allah ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne leeral nga nu ko ñetti leetar yooyu nga xam ne lépp ay njariñ la leetar yaa ngi ni ngeen jàkkaar lool ci écran bi bii ngeen di gis ni moom la sëriñ Fallou Mbàkke bi mu doon sëriñ Abdou Dia Mbàkke di yooni ci atum ne ko yow Abdul Xaadir Mbàkke sas naa la téeméeri junni ak juróom fukk ci mottali liggéey jumaa ji te xam nga ne téeméeri junni ak juróom fukk ci jamono boobu yaakaar naa ku ko méngale ak léegi ay milliards lay doon wala dina ko jege euh, beneen bi ko jiitu itam di leetar boo xam ne sëriñ bu mag bi moo ko bindoon sëriñ Afia Ahmadou Niang ci téere ak kaamil boo xam ne sa ñaaf yi da ko koo bindaloon sëriñ bi xol bu maanaam sedd bu xolam sedd ci kaamil boobu tax mu bind bind ko leetar bi di ko ci ñaanal ko ci ñaan yu rëy yi beneen bi ci topp itam di leetar boo xam ne sëriñ Abdou bi di da ci doon yeesalaat ak jaayanteem ak taalibeem ak cofeelam ci sëriñ bi ndax leetar bi li li tënk wax ji mooy ne ko dama am ci yow aajo tey yow sëriñ bu mag bi aajo bi nag du lenn lu dul ànd ak yow tey ak ëllëg daan na ko wal tajal lii ala dalika sadaqatan lillahi wa lirasuli te loolu nag maa ngi lay ñaan nga saax ma ko ngir yàlla akub yonentam ànd gi ma bëgg a ànd ak yow tey ak ëllëg du ma teqali koog yow mukk loolu maa ngi lay ñaan nga saax ma ko rek ngir yàlla ak yonentam daal na ko nag jeneen aajo ju dul jooju laa rëy kon luñ mën a jàngate ay njàngat yu bare noonu waaye dañuy bañ a guddal ñu xam ne ni ñetti kàddu rek incha allahu moo des ci jotaay bi di kàddu ahlul rida te Serigne Fallou Mbacké war cee wax wax war a wax ci tuuru daairatu ahlul rida waaye itam ci biir kàddoom googu dina limaale délégation yi nga xam ne ñoo fi teew ak leen ci kilifa yi incha allah ak ay kàddu yu cant rek yoo xam ne dinañ ko jokkalante ci biir njaboot bi ak mbokk yi bu sëñ Fallou Roqaya jeexalee ci kàddoom yooyu ñu teg ci kàddu njabootu sëriñ Aafiya Ñang te sëriñ Aafiya Ñang ñi yor kàddoom nga xam ne moom mag ci sëti sëriñ Aafiya Ñang yi eh, bu noppee nag kàddu ki nga xam ne mooy wax ci turu xalifa kër gi di Serigne Mame Balla moo ci topp nga xam ne mooy tëj jotaay bi te Serigne Xaadim Mbacke moom Serigne Ilimaan amee kàddu googu ci jotaay bi waaye nag mu jébbalaat ko nag rakkam Serigne Cheikhouna Mbacke moom Serigne Saliou moom Serigne Abdou Mbacke di yooyu kon ñetti kàddu yooyu rek moo ci des incha allah kon ñu woo Serigne Fallou Rokhaya mu wax ci turu Ahlul Rida limaa lay tam lenn ci délégation yi ak kilifa yi. Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer